sunu borom yàggal ko fi te ko ba naar yi mu naalal lislaam yépp mu àggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa yépp ak mbooleem kilifa yi ak jullit yi di nuyu Sëriñ Alxaaji Buso jaarale fi moom nuyoo njaboot gi yépp njabootu Sëriñ Cerno Buso gi yépp di ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi te wéral ko dañuy kilifa yu baax yi jiitu woon naam naaloon te yéene woon ko lépp nu àggale ko tàdd ko njaboot gi di nuyu sëriñ Mamour Mbacké sëriñ Mamour sëriñ Cheikh May di ko siyaare bu baax moom it sant yàlla yi ci sunu diggante ñaan yàlla sunu borom yàggal ko wéral ko na ma jaarale ci moom nuyoo kilifa yi teg ko ci loxoom ak waa ñoo wootee bis bi jaarale nuyoo bi sëñ Moor ndax moo doxoon suñu diggante kon mën naa jaaraat ci moom Cheikh Abdou Lahad moo ngi bu baax di la siyaare di nuyu Serigne Cheikhouna Bousso Cumbaleen bi sunu ginnaaw moom it sunu wolare la bu baax la ndax waxtu bu nekk ñu ngi jokkoo ci bàyyi xel liggéey bi bu ca déggee dara loo xam ne mbégte la mu woote bu ca déggee leneen du woote loolu baax rek la moo tax ñoo koy nuyu bu baax ak kilifa yu baax yi nekk jataay bi yépp maa ngi leen di ziare seen góor a noo ngi leen nuyu baax di sant yàlla mi nu mayaat ba ñu dellu si waat jataay bi ndax nee na ni am na lu doxoon ci diggante bi ci xew-xewi jamono ba tax daje yi ko sababoon yàlla na ko ci réew mi te gën a andi tawfiix ak xéewal muy jataay bu am solo ñu waxoon mu fàttaliwaat nafaraat waxtaanewaat dund mag ña ànd ngeen àndoon ak Sëñ Tuubaa ci yitte ju kawe ak liggéey bu rëy boo xam ne def nañ ko te ñoom lañ doon liggéey mooy liggéey te yàlla tax lañ doon jëf lépp jëmmi suñu borom a tax seen yóbbu yépp waaye la sëriñ ba woote woon it niñ ko wuysee kenn ku nekk ci ñoom ndax sëriñ bi ndigal lim jotoon bàyyi ko ci boromam jaar ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mu tàggat ñooñam yar leen ci yitte yitte ju kawe joo xam ne mooy tax mu yegg ca njobbaxtalu mbir ma raaytu nihaaya la leen fa yóbbu woon loolu mooy yitte ju rëy ju kawe leen amoon loola sax moo jàppandal seen jëf yu rëy yi nga xam ne jëf nañu ko tam am ay résultats yu yaatu lu tax waxtu wu ne di ko waxtaane dafa jot waaye mel na ni waxtooma ngi gën a jot ndax ku ne gis na adduna bi fi mu toll waxtu wu nekk day mel ni ñenn ñi da ngay jàpp ne sax royteef amul amuñu ay référence wala ay delluwaay ndax làqu ci ginnaaw ay waxukaay mel ni ku jubloo wàcce dara fekk na ki xamul bu la dégloo day defe ne li ngay wax noonu la demee te fekk na yoon wi tawféex ji ci nekk mooy kenn koo jël ci mag ñi àndoon sëriñ bi dafay doy misaal mat royteef ci lépp loo ko nattee ci diine ju sell ju tege ci sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam seenu jaamu yàlla looloo taxoon mu dëgër waaye nungoo liggéey nga xam ne fi ne tey bu ñu doon xool sax ci àdduna te bu ñu demee ba ci kanam danañ ko taxawaay bi mag ñi amoon li mu feeñee ci économie réew mi ak développement bu réew mi sax amul nitu àdduna ku mën a taxawee noonu indi yooyu développement wane ko ci rek dëkk yeni sant nañu soree nañ fa toogee di muñ di jaamu yàlla di liggéey ba lépp luy fekk doomu aadama ceeb dëkk fekk leen fa te diine ji dëgër fa la leen taxoon a jógit sàmm ba dara du ko yàq ndax ku ci masal sancu dëkk jaamu yàlla ak yar njaboot gi rawale leen ci ñu mën a dund lu barkeel lu dagan rek ko mu mel ni la kon jëm mi sëriñ bi bi mu ñëwee dafa woote te lim woote mooy lim jot ndigal xam ngeen ne Cheikhul Khadim ñetti baat yi ñuy wudde tudde ab sëriñ yépp benn bu ci nekk jaar na ca nga xam ne Cheikhu taalim la Cheikhu tarbiya la Cheikhu tarqiya la defe naa bokk na ci ñi dàqoon a jàngale ndax boo xoolee ñim jàngal ci ngay xam ak mën a jàngaleem ndax ñam jàngaloon koo ñooña kun jàngal ci ñi raw ci jamono ngay bokk di sëñ bay jaxate naan ku bàmba jàngal nga mën a jàngal képp ku ñu bàmba kon day wan ne ak mën a jàngaleem sax tax na ba am na ci mag ñoo xam ne bi woote bi bi leen woote bi di fekk bi sëñ bi woote mu fekk leen fa sababu la leen fa yóbbu woon mooy ndax sëñ Mbàkke moo rant sëriñ daaraam sëriñ bi da ca daan jàngale waaye ak mën a jàngaleem tax na ñooñ wóor la rëy sëriñ Mbàkke Mor la ñu woon waaye bul masaa ñëw ci sëriñ bi xamul mën a jàngaleem moo leen bàyyi woon ci sëñ bi ba buy woote mu fekk leen fi ñooñu sax féete woon nañ sëñ bi ak mag ba tax bi woote sëriñ bi ñëw ñoom dañu daal di continuer ca lañ nekkoon rek moo tax kon mbirum jàng ak jàngale loolu dafa teel a nekk mbirum sëñ ala arbaxam admanta fi sama li siba ala al ilmi wa taalimi wa zuhdi wa nus loolu am na ci naar yi ku ko wax loolu yow kat da nga teel a wu ci ñenti mbir muy jàng ak jàngale te Serigne Bachiru Mbakke wax na ci Minanul Baqil Xadim ne sëriñ bi diiru fanweeri at yem nekk ak woy juróom du taxaw du taxawal maanaam taxawulu dara nekkul ci dara lu may ne ci ron way juróom di jàngale loola feeñ na ci ci biir daara jim nekkoon di jànge taalif na ci téere yoo xam ne jàngal nañ ci njabaru sëñ Mbàkke moroom Anta Sali kon loolu it wane na ak mën a jàngaleem ak kaweem sart yi nga xam ne it waxoon nañ ko ci te sëñ bi leeral ko ci kiy jàngale ci dégg li muy jàngale xam maanaam mi am fasaha boobu moom ku mën a joxe loolu dafa dajewoon sëriñ bi nga xam ne benn bay benn bind bu la ko mësa a tëralal rek ni ngay feese ci xam-xam bokkul ak nag baatinub la ca nekk waaye loolu ci saayir si rek bu la tëralee dégg maanaam mi mu lay jàngal ni muy leere loola it ca la nekkoon ba aw turam teera tasaaroo ci àdduna ba ñëpp xam ne kii kat euh, xam-xam bu rëy bi nekk bi nekk ci moom ak kawe gi gi nekk ci moom moo tax am na ku ko doon misaal sax baatu acheikh ñu koy misaal sëñ bi mu ne ñetti araf ci koy composé yëpp daje na ci sëñ bi ñetti baat yi tënk a cheikh chine geeg yaa geeg xar mooy shakirun li amila yaa umuru bil maaruf wa yanha anil munkar xaayifun min makrillah mu ne ñett yooyu nag booy wër ci kim daje mooy jëmmi sëñ bi kon sëriñ bi ci boppam da doon jàngale nit ñi wuy su ko ci njàngale mi it ndax daara ju xumb la nekkoon te bàyyam sëñ Mboor dañoo waxoon ne dafa doon université bi nga xam ne ñu bari jànge si nañ ci lolu feeñ ci biir wayu sëñ Mamar Kan dingiraay mi nga xam dañuy wax ne mo jëk way sëñ bi ndax bi nga koy tag fukki ak nangam la sëñ bi am feeñ na ca ba wax ne ba tag sëñ bekk dina dal Ahmadou Bamba kaani walidahu bahru ulum namiril ma il mawruda waye bam mu ndigalit kon dafa dafa tuxoo ci halu tadris ñëw ci halu tarqiya moy rabbi ashabaka bil himma kon jot na ndigalul woote te booba way juróom nekkatu fi ci fanweeri atam lay toll 1270 muy charaa ak bi muy woote di asas fanweeri atam yu mat la mu jot ndigal te booba li tax mu gën a yéeme it ci sawu jant booba AOF lay tudd muy Afrique occidentale française juróom-ñetti réew yu ko composé booba li xewoon mooy li ñuy tuddee Seexu Taali sëñ buy jàngale ami i dong di am ay ba ki dibeer dana la jural mbooloo waaye mbooloo topp la nga tërbiyee leen defar leen loolu sëñ bee ko fi indi loolu it sëñ Moussa ko jàngale na ko ngirum tërbiyaa ngi xew ci sawu jant yaa ko def pajuk ajo ya tax nit ku ñuul mus ko fi Tuubaa ku ciy bañ a ànd ak Bàmba xam da koo xamul ndax gumba gistu leeru jant yéem naa Sëriñ Tuubaa كما رسول الله موي مات غدوتو سيو ماتوك سيد الكونين لن جوخ سيرن توبا غينيون نانا ياي ووتاتو نيول مكه سيك ديفال كوكاي سيك ساكا ريري جاتلك سيرن توبا كون انت المربي بما رب الامين به حرفا بحرف فما في الجيل الشروك كون لي نار بي واخ موي دوبوك لي شيخ موسى كو واخ كون ياي ووتاتو نيول مكه سيك ديفال كون kon señ bi moom wax ja leer na mooy moom dafa donn yonent bi ci ñëw defar moo tax it bi mu jotee ndigalul wooteel sa ñoñ ñii defar leen jëme leen ci yitte ju kawe bu ñu yam ci jàngum kese rek kon li ñuy jàng nañ koy jëfe ba mu ne yàlla digal na ma ma woote ña ko wuy si woon daf leen a suuxat ci yitte ju kawe te yitte ju kawe ji moom moom mi ko woote mo jëk am yitté ju reuy sëriñ bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digënté ak sëriñ bi gàddaay gi amna na junni at ak ñaar téeméer ak juroom ñaar fukk sëriñ bi doora a 1270 mooy charan té sëriñ bi yitté ju reuy moko may ba mu joggé fam mu teg bëtam mooy ñett dëkkoon ak rasulullah di sahabatu rasul mu tegon bëtam te jàppaaram njëlbeenam ku melni anas di liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ibnu shahab waxna ne mom day anas fukki at lam bi muy ñëw ci yonent bi fukki at la nekk ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon ci ñaar fukki atam la yonent bi alayhi salaam wàcc ak ñu wax xasaan ibnu sabit ak kaab ibnu zoy sëñ bi boo xoolee ci biir ñaar ñii ci xaside yi doon tëggee tuuba am ci gu tudd ak nooniya te moo di xattaaba lamma lahu sallamani ca biir sëñ bi la ciy ñaan yàlla def darajaam mu mel ni maqaamam mel ni anas ibnu malik hasan ibnu sabit wañaal maqaami maqaaman murtada anasin fi xidmatin wa ka hasanin asil arab kon day mel ni fam gis mooy am ambition am yitte ju rëy ndax fam dàkk ak fam diir waaye ba mu sóoboo nag yitteem da koo may la anas nekkoon ak xasan ne ca anas di ko liggéeyal moom mu di ko liggéeyale ci di ko tagg ak di julli ci mom ak di ko ci defar nit ñi ak dundalat sunnam dafa dem ba eggal bopam ji wax ne li qutama sax saxal ni danas surtout xaddiimal mustafa mislu Anas lolu kon jéegalu bu sirtu qaddim al mustafa mislu Anas mujuna melni mel Anas kon kim mu wax di ñaan borom mom nani mel mel na ni waaye yitte ju réyee ko may nak mu xamne lo am ben limi bax bax fuk fukk señ bi ne kon naa ko mayat mu egg ci ba ko borom a wommatalee lay mu egg ci barra anil xudus min kulli danas waa inda xayril xalqi jaawastu anas kon léegi gis nga naa ni mel mel naa ni jéggi naa loolu loolu it yitte ju rëy rek ko may ak yitte ju kawe nga xam ne waxtu wu ne lahum tidaax yi baxda najaax yi inda sabaax yi wa fi masaay salaatu sitta bi mati sitta taatihi battama tisaay du noppalu ba dem ba ma sañ a wax ne raditu anil baaqi wa an xayri xalqihi wa fi matxihi jaawastu kaaban wa xazana yitte ju réy ko may loolu yitte joojoo ko may mu egg ci xaddamanillah ala alxuddaami bil mu sabit al aqdam moo ko may bu bushirtu anna rasulullahi qaddamani wa anna rabbi yamali bin nabi xabila kon bu ñuy wax yitte moom kiy jiitu bu amee yitte ju réy ngir mu wammat ñi muy wammat day yomb ndax la sëñ Saliou doon wax ne yoon wi du yoonu dox leen ma ñëw kon na ngay jiitu ñu topp la ki jiitu moom moom la ay witee sam gaaw gaaw yi xam ne moo tax dox yi nu mag ña gaaw ndax bopp saxaar gi wago yim lonk nu witee su bopp bi toll rek wago yi doxee ay gis ngeen bu jekki-jekki won frein brusque wago yépp ay tampante kon mi ngi aju ci aji ki dox muy aji jitt yi señ bi la yitteem dafa reuy motax mu daal wax mi mag ni naan len na ngeen yëkkati seen yitte fal tarfa'u himmakum li nayli ma naaral kiramul xudama da ngeen fexe ba seen yitte yi na ngeen ko yëkkati ba mel ni gaay yu baax yu jëkk motax bimu len di joxe nit moom saxaabatu rasul len saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diini ci pas-pas ak yitte ju kawe misaal leen na ñooñu daj nañ lu gën a metti nangu nañ seeni alal génne lañ leen seeni kër naq nañ leen ci ay ndox walal nañ seeni deret ba mujj seeni tagg na fang ci alxuraan sëñ Mouhamadou Lamine Diop daga nii nee na bu ko sëñ bi masaa nett li ba noppi daana ca teg laayay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون kon day mel ni ñooñu mu leen doon xiirtal di leen ca toppaloo it yitte ju réy leen yóbbu woon ndax jaay nañ seen lépp sëñ bi nag di leen tàggat ci yitte jooju doomu aadama aji ki koy tàggat li tax sëñ bi bi mu ñëwee yittey mag ñi gaaw a sotti seenu yegg gaaw a rëy mooy yàllay kese rek la woote sëñ Tuubaa wootewul lu dul yàllay kese daa ilallaahi jalla fal mujibi lahu riban wa naajin wa muhtadin ilallah yuulil muriduuna maa yabquuna min karamin wa maa yuriduunahu min anamillah ñi la topp am xam-xam mel noonu ba yàgg ñu ñëw misaal la moo tax ku ma sa ñëw ci moom it li nga koy wax yàllay kese rek la bëgg yàllay kese ma tax a ziyaare si yàllay kese ba tax a ñëw ndax yàllay kese jooju la leen woon mu tàggat leen tàggat gu gaaw fexe ba tàggale leen ak aadaa u daaxile yi nga xam ne ñooy gàllankoor nit muy bakkan ak bànneex ak àdduna ak seytaane sëñ Mouhamad li mu jub dagane nee na minhaaju riyaada li sëñ bi amee woon ngir dox yi nu mag ñi mën a gaaw ci tàggat leen mooy bari lu mu leen di xiifal loolu lu muy jariñ am na noonu bu muy not di leen lo amna lu muy def di leen sikkarloo amna lu muy def di leen were kekkuloo amna lu muy def mune beru gi sax rawatina jigéen ña xam ne ak sam muntu fetu tay mam Cerno borom daaru min ñu señ mam maam Cerno Buso mii ba ko sëñ bi len ibrahim na nga moytu jigen ni borom daaru na nek sama nday la nekkoon soxna fetis muneko buma waxe jigen ni sa nday fet isa tax kon ki la ki la ki tere sa néeg way juru jigéen kon waxatu la leen ñu wax ci doxin woowu ñu doon dox mu tàggat leen ca yar leen ca ci di leen xiifloo ak di leen marloo ak di leen tuddloo yàlla ndax booba am ndaax yi amagul xaside yi ñu yëkkati ci njëlbeenu yoon wi sikar la mag ñi doon def sëñ biit wan leen di ku sóobu li gën ci moom mooy muy saxoo sikar xayru taxaami li muridi saaliki dawaamu dikkiri si jalaali maliki taxone fo len fek ña ngay jang alquran fo len fek ña ngay tudd yalla señ bi di len tagga da ci tarbi yitte ju kawé yo xamné dañuy dox jëm ci seen borom ta xamé nak mom ndax lim nan gaay yu baxé kullum bi anwaari qurubi ma ndax señ Tuubaa li tax mu mën defar kii dana mën a defar doomi soxna ndax jang na waye defar doomi soxna defar ay ceddo fexe ba sëñ tubaab moo defar ñaari catégorie yoo xam ne koo ci fekk muy pratique diine doo ci xam kan moo cay kii boo xamul lu may rek jëfe am la tàggat ci diine ba boo jógee di ko jëfe na jëf yi way mate nga xam ne ñii ñu réer la ñuy nekk ni nga xam ne mën ngaa tudd na tey boo tuddee borom xam-xam yeeg sëñ bii defarul genn wet googu ndox sëñ mot la min Jóob euh, sëñ Muhammad sëñ Ibrahima Jóob wax na fa kam zalimin wal wasra anqada zahrahu فلما أتاك سارة عبدا بلا وزر فكم جاهل علمته وهديته فصار مطيع الله في الأمر والنهي فكم مصنب مثلي بجاهك جاءه من الله غفران له جال بطهر كون كون بكار دا يوفو موم اب تشادو كوتيلي نيو في موم كنيو نان موم مي تربيا نا موم سيرين بي تي بوبام بوم تي مانا دون ميلوما بالحال او بالمقال او بالاشارات amna ci ñoo xamne ay ceddo lañ ñëw ñëw ñu ci señ bi rek gis ko ni pratiquer diine bu toy seen xol ban jox seen bop señ bi amna na ci ñoo xamne ay doomi wuur lañ woon demoon nañ ba dañ taxaw guddi bok ci sufiyanke yi nga xam dañu daan taxaw guddi di fi da lolu ko xam histoire gannar ba ci diggante naaji ak señ bi ba mu dawee jëm ci mom ñako doon akki amna na ci ñoo xamne ay doomi wuur lañ te dañ taxaw guddi di naafila sëriñ bi rek fexe ba lim njëkk a defar ci ñoom ba seen yitte gën a kawe mooy génne àdduna ci seen xol te sëñ bay jaxat naan nan génne àdduna suñ xol foofu sëriñ bi da koo àdduna day silmaxaalub xol ba muy palam lu tax ñu jiital ci génne àdduna mooy xol dafa bari doole mooy buur bi mooy moteur bi mooy dynamo bi mooy énergie mooy dégager énergie bi nga xam ne moy tax cieur yi meuna jëfé li ñi meuna jëfé mu fexé ba ba défar xol yi rag tagat ko waye bimu défaré xol yi ba xol bi dëgëri dafa défar jëmm yi ba jëmm yi dëgër nonu ko si mbakki bu so waxe ci misal rek wal qaws wal miqyas rabba qulubana wa ajsamana fal kullu safi wa naay ndax auto motor bi mën naa baax gi magat du tee mu sori dox waye kees gi mën naa yees peq ba magat aw dox yi nam du yàgg kon señ bi day defar jëm ba jëm ji jag te defe naa ku xam tagat nit aduna mo andi na ko léegi yu bari yu nit doon jaxlé ci nitu ruux nit ki tagat ruux ban ko def ci jëm aduna science andi na lool légui mom ñi xam ci walu yëngutub aduna bi rek légui légui ñu tagat la ba nga mëna def so jëm wala ci yaram no xamné da nga xamné effort bi nit ki def ci lool def ruh si si si ci ci lool ndax ruh mom lèr la amna lokoy loo dundale rek doxina yi na woowu kon sëriñ bi moom la leen doon joxañ loo di leen tàggat ci néewi nelaw moom mi leen ci tàggatit moo ko gënoon a man ñëpp ndax wax naa ne moom histoire yoonu murit lu nettali bi bari bari lu ku ne beru ci sa roqit kenn du ma sa wax ne keroog bi sama kilifa di ñëw sëñ bi fekk ko muy dallu walla bi sama maam di nafile sëñ bi nelaw kenn du ko wax xanaa guddi kukk àdduna na tekk mu nekk alquran ja loolu de mooy mbiram moom sëriñ bi ci boppam te ca la doon wommat ñi mu doon tàggat moo tax ci biir mag ñi nga nah, dégg ñu ne diw daana nafila téeméer ya, rakk ñu ne Mamour jaara borom sham wala ñu ne sëñ daru Asan Njaay wala ñu sëñ ma Ummi Jang wala ñu sëñ dam Abdourahman Lo kaamilu alquran di leen tàggat ci melokaan ba biir biir njabootu sëñ bi ci biir mag ñi ko toppoon man nga caa génne ñoo xam ne téeméer rakk la ñuy nafila ci biir njaboot googu man nga caa génnee ñoo xam ne dem nañ ba wenc ci muñ lépp luy bànnee xub xewlu ci ànd ak sëñ bi ba tàmm xiif ba woy ci sëñ Bakki Bousso doy na ca misaal Masaalikul Jinaan leer la te ba mu ci ànd ak sëñ bi tàggatu ci sàmm ndax bokk na ci liy tax doxin wi gaaw ndax ñett yi sëñ bi wax ne ki sóobu faaw mu yóbbaloo bu ci nekk sëñ bi da ko def ci man xayru taxaami li murid bi saliki dawaamu dikri si jalali malik وخير زاد تقى والفقر لمن له قبل بعض الامر اما سلاحه فخر سيف ورع به يكون قاطعا قبل التناح سو خدم تي راغال يالا واي جيفي ناخ راغال يالا موي جيفي جيفي مبير ان شاء الله اول جيتنا بنوحي واي تاغات ليد نك تي بنين دون مودي سام لولين سام دافنا لولو تاخنا سين ييتا جوري غنا مانا غاو سين شيخو بوسو مو باخما خامنا موي ا آه، تاو سيرين بوسو بي gis nga nettali nañ ko ba tàyyi koo xam ne daan muñ soow meew ndax lan nee na nag wi ñu ko ratte xamul ba xam lekk na am ruuram déet nga mën a muñ ci ak sàmm ci lu bari nga xam ne ci lu néew ak ci lu bari nga xam ne seen identification yépp mooy ni ko sëñ bi indee ci xoqa mooy seenu yi yitte joj dana yeroon kaanu ida lay arqa sitala daharaki xaamu siraan li yaha idi janati bu guddi gi kukkee rek ña ngay kurkuri moo tax mag mu ci nekk ci mag ñi boko mi ne bu ñu netti suwaram dañ nan la guddi sangam dana ko rombu deg mi fenge ya ne ca jangum alquran wala peru kurus ba di dal te du te godde ak yuli di len sam ay duñ ko tal ndax de yalla ak seen borom ndax sëñ be len branche ci lolu bañ bañ am lolu Takde gogu mu len di tagati ñom ci seen bop biñu ñëwé xam nga Serigne Touba li tax ak defaram doxine way gaaw sëñ bi bu la duyelee yetti àndaar dafa am yetti dab yoo xam ne sëñ bii la koy duyeel ba noppi dox sa digganteeg yent yent la lay duyeel ba noppi dox sa digganteeg yent yi koy yàq boo yeggee nag yeneen ñeent nga yabat moo tax ku wéeru ci ki ànd ak moom tam nekk dëgg loolooy dikk ci moom man laa sa xaqan bihi tatihi arbaatun fawzun wa xufrun wa ridwanun wa asalaam moo tax ku ñëw ci sëñ bi loolu ngay sàkku ñeenti noonu yi yàq nag wa zaayalatu alal ahday arbaatun suun dalalun wa ixwaun wa garraar moo tax not not loo noonu leen seen bakkan not loo leen seen bànneex dëdduloo leen adduna not loo leen seytaane ba ñeenti noonu ñeenti noonu yi ñëpp ñoom ñëpp kenn ku nek noton nako ci ko ci déglu histoire mu diko netti lo deg fu ko aduna tarxiis lo lo deg fu ko bakkan tarxiis lo lo deg fu ko seytaane tarxiis lo te jamono buñ ñu doon dund par rapport ak jamono bi ak lamuy am jafe-jafe trop teewul ñu ah, moyens yu bari amul waaye sàmm nañ ba dara mënu leen a woon a fab bi bi ñu doon toppit waxtu wu nekk muy gën a wéyal yitteem ci jëm ci boroomam di leen ci tàggat koo xam ne daana bàyyi ba guddi suuf sedd mu woo aw nit ne leen ñaati baat ngeen fi wax bi ngeen xëy ak léegi léegi-léegi nit na ko ne nuyu naa fi nit mu ne ma ana waa kër ga ana njaboot ga sëñ bi danaan ko bëriwul waaye ba léegi na gën a néew bariwul waaye boo léegi na gën a néew wala mu nit laaj fi nit ana ba nga xëyeeg léegi ñaati baat nga fi wax ah man de àbb naa fi xalima wala àbb naa fi saat sox sama xalima ñu taxaw loolu dina naa ci loolu wala mu leen sikkarloo kon tàggat gi mu leen doon tàggat mooy dox yi nu bar wu gaaw yi nga xam ne doon leen ko yittewoo ba noppi it taxawu leen ci taxawaay boo xam ne ñi ci toll ci ñi nga xam ne boroomi doomi soxna lañ ñaata daaray alxuraan la sëñ Tuubaa taxawalaat ñaata daaray xam-xam la sëñ Tuubaa taxawlu mag ñi nekkoon ci nga xam ne boo demee boo dee sàkku ji xam-xam daaray xam-xam a ngi daaray alxuraan a ngi daaray tërbiya a ki ñëw weesu jàngit am na ay tomb yu ñu lay tombal ba nga mën a jëfe sa diine ba xam ko tàggatu nag tërbiya wu te tërbiya gi lañ lañ ci jublu moo di defar jikko taggat nit ci mu mën a am moom boppam ci mën a jëf jëf ya ko war yépp mu taxawe ko loolu leen sëñ Tuubaa doon tàggati nag ñoom ñépp moo tax amuñu waxtaanu wow àdduna lu dul jëm ci seen borom ba mu leen tàggatee ci yitte juréy jooje nag boole leen ci liggéey te yàlla tax nga xam ne sëñ Tuubaa moom baatub xitma bu ko tuddee rek jëf te yàlla tax mooy jaamu yàlla la ba tey te mag ñi lenn luñ mës a jëf di ca séentu intérêt bu teew amut lépp luñ mës a jëf jëmmi yàlla rek a tax ñu di ko jëf boo leen séenee ca tool lu luñ ca yëngu boo ko xoolee ak jaamu yàlla ndax ci jëmmi yàlla tax boo leen seenoon lu yarut jur lu yëngu bu bari bari ci jaamu yàlla rek la jëm ndax benn danañ ca dundal njaboot gi ñu yor kenn ku ci nekk mbooloo ngi lay topp danañ ca dimbale te li ci gën a yéeme mooy kenn ku ne ci mag ñooñu tund woo ma sa nekk yaa fay tane bu ñu ma see waxtaane mag ñi da ngay dégg ñu ne moo defal diw nangam ci tund sangam tund sangam te barke ba leen koy may mooy nungoo liggéey te yàlla tax bi ñu doon nungoo liggéey te yàlla tax ndax sëñ bi leen tàggatoon ci loolu fi ne sëñ bi ci boppam bu dee ci jëmmi liggéey rek nga xam ne fàggu dara la pour liggéey mbooleem ay ouvrier ay liggéeykat ñu bare ñoom ci ñi doon bay sëñ bi woon waaye yëguñu woon ci bay rek dañ caa liggéey leneen ak leneen te moom ab liggéey it amul buñ ciy réy loolu loo kenn di ko ñokkam kenn ku ne lañ cay jëf boo koy jëf da koy jëfee ngir yàlla lépp lay ànd ak lapp lépp lay ànd ak teey lépp lay ànd ak baax loola taxoon nañ fu ñu mën a dem pas-pas bu dëgër boobu nekk ci ñoom kenn du leen mën a xiixal murid gi neex na lay bi ndax day mel ni boo jébbuloo tey rek am foofu waaye bu jëkk da ngay jébbulu ñu génne la am na ci ñoo xam ne benn doom lañ ci seen way jur wu jigéen mën nga tudd seen Aliou Diouf Lambaye moo ne boo jaayantee lañ def mooy génn sa way juru jigéen tàllig ba mu am na la di wuti barke ba noppi bàyyi sa way jur foo koy jënd ñenn ñi dañ leen daan dóor defe naa ku dégg xisab sëñ Babacar Ndiaye sëñ Mamar maa ngi may da nga xam ne yitte ju kawe ak pas-pas bu dëgër moo tax kenn mënta yokkat loo ñooñu ca waxtu woo bañ nekk mooy bàyyi leen seen bi baa ñu fàtt la loolu mooy wax bu gàtt bàyyi leen sëñ bi baa ñu fàtt la waaye fekk booba mos nañ ci sëñ bi yàlla leen won ba yëgatuñ seen bopp gisatuñ seen dara li sëñ Tuubaa di wax ne bëgg gi ma bëgg yonent bi tax na ba bànneex bu nit di war a bëgg wala lu nit di war a yég yëgatuma ko ndax bëgg Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa loolu la suuxat ci ñoom ba ñoom it amatul lu ñuy yëg amatul lu ñuy xool ndax sëñ bi yàlla jëm leen joxañ wan leen ko loola rek lañ gisoon tàggatu jëm ci seen borom gis nga sëñ Adama Gueye keroog bi mu ñëwee ci Sëriñ Tuubaa te mooy ki dëkk a jaayante bi ko sëñ bi di wax waxuma dénkaan bi nga xam ne hasa ya aadama ya mur in kunta nuur rabbina turidu waaye wax ju leer la ko si ne ko li ngay wut boo ko bëggee dangay bàyyi ñuñ adduna ñi tàggoog ñoo boroomi alal yi mu daal loo ko ca saase bàyyi lépp waaye nee na diir bu néew na diir bu néew mbooleem yu nëbb woon yëpp yàlla wuññil ko sëñ Adama sëñ Adama Gueye ku xam xam na ne nit ab taalibe bi daa ne fi gën a sori mu di ko mu di ko mu di ko xaj ji wala mu ñëw mu nettali la mu doon def te nee na loolu maa ko amee ci jëmmi sëñ bii ma jaayante am na ñu ma a ñëw di ko ñaan loolu na leen daan tibb ci barkeb suuf su Mbàkke Kajoor sama jaayante la kon loolu dañ mel ni am na lu dee sëñ Bachirou nee na Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee ci sëñ Touba te bi mu wax ne xakka alaya muridihu kabir Cheikh Ibrahima Fall kon moo ko wax bi mu ñëwee sëñ bi lu mu ko wax damay seet sëriñ bu mat bu egg ci yàlla buy eggalee boo xam ne kat damay fekk leer yi ak lëndëm bi bindee fii di faloote ci kanam kooku nag bu ma ko gisuloon ca gis bàmmeelam ca bàmmeel ba lay sax di ko liggéeyal ba am damay wut xanaa kon yitte la waaye lu ko sëñ bi wax faalam yaa ibrahim bi anni law lam ajid min asaari sallallahu alayhi wasallam illa munzaru hasi sama yow it da nga xam ne kat bu ma ñëwoon jamono may ahmadu bamba fekkuma fi benn jeexintal lu mooy biddiw yi ak asamaan si daana tiim rasulullah sama dëggale sama yitte dana ma may li may wut ci ma baam ko waaye nag na nga xam ne adduna yow ibrahima fall doo fi am lu tol ni mbaar mu lay tiim waxuma la ak sa njaboot nag mu ne ko man bëgguma fi sax karaw kon gis nga bi ñuy jaayante lu tax ñu jaayante yitte ju kawe lu indi barke bi kon ak lu indi nangam ak nangam lu toll ni mbaar mu lay mbaaral doo ko fi am mu ne ko lu toll ni karaw bëgguma ko fi kenn ku ci nekk boo ñëwee lay wax sama mbir nangam xiraaya fawzun wa ridwaanun wa takrima li ma bëgg nga berne la ma ko mooy ngërëmul yàlla ak nangam ak nangam kenn ku ne ci yitte ju rek jooju nga am yitte ju kawe jooju nga am boo ñëwee tey ci ñii sant bu kenn ku ci nekk boo tàggatee ci biir mooy jaayante kooku doxin woowu wax naa léegi suñu Cheikh Bousso boo demee ci suñu Samba Kanni Bousso loolu nga fekk boo demee suñu Mbacke Kanni loolu nga fekk boo demee suñu Mbacke Bousso loolu nga fekk ba ci suñu Cerno boo ñëwee kenn ku ci nekk lañ jëkk def di yitte juróom mooy jaay li nga bokk ak sëñ bi ndax sëñ bi moom xam le ne li fi moom li ci tax a jariñu kon loolu da caa bokk bokk gi am na te sax na te sëñ bi dëggal na ko wéral na ko ndax ku xool ni mu jëflanteeg ci ay bokkam it damay wax toujours ne boo déggee ku naan sëñ bi bokk nangam sëñ Tuubaa li mu defali bokkam defalu kenn kenn la ko defal ndax koo mën a doon te doo ñoom ak lu sa dara ji rëy rëy bu dee benn bang ñooma da ngay teggi sa mbaxana kon li mu defali bokkam ci sag ak taraanga defalu kenn sëñ bi moom sédd na ku ne lu ne mën naa am nag waaye moom kenn bu mu xalaat ne la nga am ay bokkam am ñu ay bokkam la moom kenn am ndax doy na ci am gin am sëñ bi dong doy doy na sëkk nga ne la Maam Mor Jaara borom saam bi wax ne daa dana fi la téeméer rakk mas laaj taxawaay beeg mu ne ah dama ci sant yàlla ci jaar gi sëñ bi jaar fi noonu te sëñ Tuubaa waxoon na ko mook sëñ Cheikh Bousso waxoon na ko sëñ Maam Mor Jaara ak sëñ Cheikh Bousso woo leen fii ci Sonatel bii boobu fi la leen bu kenn ànd kenn wala ku ñëw ki nga àndal bu mu agsi ba ñëwee li mu leen wax da ngeen doon ñaan yàlla di jaamu yàlla ba yàlla nangu seen ñaan nga te ñaan nga jaare ci ma woote naa nag bawal kajoor saalum ñëpp dana ñëw te kenn ku kuy ñëw melaw ñu ñooñe ngay ñëwaale waaye la ngeen nekkoon ba lii am bu leen ko bax mooy libér kon kon ñoom yitte juróomi jooju bi sëñ bi ñëwee tañ nekkoon ca loolu la renforcer na ngeen ko ne na ngeen ko wëy te mooy jaamu yàlla ak ne lu baax loole kenn ku ci nekk ci ñoom jaay nga la nga bokk ak sëriñ bi am ci yittee jéem ko sàkk ci nu nga jëf ci nu nga melokaan lu tax ñu ñu di ko def mooy bokk na ci liy tax sarti murit gi wala taalibi bi pas passa mën a dëgër mooy bu liggéeyu dana am lu man ndax bo liggéeyu waxuma ñak mom sa bop waye do participer ci xam yow ya wara a señ bi bil basdi wal khidma ana lam mu ci wa gaayatu andi indi na ca ñaar yoy wane na kat yow la war kon ci di jëfël ak di faj ci jox ko sa alal kon nu ngoo liggéey lolo taxone ñi nga xamne bokku nañu nañoo ci bu ci fannu mbacké wala mbusoobe na ñepp def lañ def xamne serigne bi ci mo ak ñom ñoo bokk lepp waye menen mbir la la borom sam doon wax inal fadla bi la yuti man yasha ci serigne bi la ko gëmee ndax ya fu suma kon yalla yor ngeene lam leen di jox ko neex yaxtasu bi rahmatil man yasha lima yurid yalla joxe lu ko sopp lay def waye xolal nak modeste gi ne ci mom ak bax gi ne ci mom sarak jitu amu amul nga mak ko jangal ko mu xey wote na yalla neena na wote nga jox ko sa bop lolou benen affaire la dong fi ne buñ ko doon waxtane man nañ ci régler aduna bokk ak nit yaari way jur mak ko jangal mu xey wote nga bayyi lo jàppoon jox ko sa bop diko ko jëbbal addiye di jox sa njaboot diko laaj ndigal li xew mom ko ne gis nako legi no la neex jappé même bo bokko na nit te yorul dara sa do considérer do ko jàppewun sax pass pas ak nangam ak na sama classe gi jappé wun pas-pas mbir ak yité liñ japp rek moy diw na dara fi ne bo bokko na nit ñaari way julit mu yor dara yoro dara bo leen tanté mu tant mu woote ga woote mo lay gëna kumbulé fop ba noppi mom lañuy tag tagg sa liggéey way jura kon bokk ko ké ana nga ne yalla dañ ko faté bu doon liggéey way jur kay ni ké amé lay am ndax wén way jur am kon da nga bëgg yedd na ko ci yow la jëfé jëf ju bax waye kay jëf ko ci nga xol kon gis defaw mën ta weesu noonu borom sàmm def nooneem def noonu la maam na def noonu la ma Massamba def jaay yi lañ bokk ak Serigne Touba lépp jox ko seen bopp loolu it moom la bokkam yii tàmbale ak sëñ sëñ bu sóobe kenn ku ci nekk batale boppam batale ak njabootam sëñ bi xamal ko lool te seet ci biir pas-pas yi koo ca gis yitte juré jooju la am ci digganteem ak sëriñ bi waaye jëfal sëñ bi kenn ku ci nekk ki ki war a féetewoo alxuraan ñaata kaamil ngay seet ñu ne la sëñ nangam buso ci njabootu sëñ bi bindal na ko sëñ Tuubaa te wàllam ci liggéey wala ñaata lu mas a am loo mas am jébbale wala nu ngoo liggéey te loo am joxe am na ci ñoo xam ne seen addiyee sax daawuñu ko jébbale ak loxoy naan addiyee juñ jébbal sëñ bi wax dañ koy boole ko kaamil xoolal yooyu melo dafa naa sëñ Mor sëñ Mor soxna taaw borom sa addiyem jooju mu doon yëpp sëñ ba mu liggéeyee ba noppi yëpp ko addiyem di ko yitaale kaamil xoolal la ko kaamil ba jural fàggul naa la ci tabbi àjjana bi xëy na barki dem bi waxtaan màggalu sëñ mbakki kan nii bu sóogi xoolal xoolal mag ñi niñ mën a faggoo mu wóor na ma yow mucc nga waaye xuu anfusakum wa ahlikum la ñuy doxee mucc nga waaye nga bindaat sàkku ci sëñ bi lu bokk ci man cosaanoo ci man laal ci man faggul ko tabbi àjjana bi xëy na xisaab yi kon ñoom da booy booy seet yitte dëgg mooy ñoom ñoom xooluñu maanaam nag seen yitte ju rëy ji moo indi lii lépp tey moo teg mbiri ci support yu dëgër ba dara mënta yàqu ndax pas-pas bu kaay boobu ñu amoon moo tax jëf yu rëy yooyu ñu doon jëf fu sëñ Tuubaa ma sa fekk seen yittee leen di may ñu fekk ko fa bu dee géej ga da tudd mag ñoo xam ne jóge nañ fii dem Gabon fekk fa sëriñ Tuubaa bu dee gànnaar la la muy yàgg-yàgg la muy metti metti mag ñi dañ daan jóge fii dem gànnaar am na ñoo xam ne jam lañ leen ay xeej bañ ba xeej bi ba xeej yi sar ci ginnaaw ku ku miin yoonu gànnaar yu xam ne histoire neexul la nekk waaye am na ñoo xam ne njaañ gii dogale nañ ci ñoo xam ne feneen dogale nañ leen ñii dóor leen nungu seen i alal ñii lañ leen ay xeej bañ sar am na ci ñooñ ñu nungoo seen alal yi dañ ne seen yéene day yegg noonu lañ doone gànnaar fekk sëriñ ci yitte ju rëy xam ne may na leen loola lu mu leen jural ان الذين الى صرصار قد قصدوا سيارتي فارقوا دارين او زارا تا غنار بوكو نتي ايتا بي غنا ميدسين عبد الكريم تورال نانا دا نان فا خيف خيف بو تار واي سين بي دانا لي تخ ما دي لين خيف لو دا ما بوغ بو الله غي بوكو تي رام رسول الله صلى الله عليه وسلم امنا تي ماغ نيكو خامني سين بي دوكو ووت لو بانت بيم اكي دار دي فدان تي ام لو ما دي سيدا سين بي نكو لوكو وارال مونكو نياكال مونكو خيف بولا دال بانكو جامال بوكو راو بي فيرو am na leneen lu ñuy dëgër loolu lu loolu ñii dañ daan sotti ci ndox ab jaañ ni ndox tëpp tëppal ko mos ci mos yu dëgër nga bu pepp lañuy am kibéeru setal ndox lañ koy jàllalee ca waxtu wa bu dellu si moo xam cinq heures lay doon bu cinq ba cinq te ku de ko dégg ñu la takk na dem gànnaar rek lam dag xam-xam bi ngay boole kàttan gi ngay am man gi ngay man alquran te gànnaar di désert bu metti coono yu tar bari gànnaar mag ñi di jóge fii seen yitte nga gis koo xam ne dana bay ba mbayam jeex benn dërëm lay am mu takk ko yët sëñ tuba gànnaar gis koo xam ne ñeenti kilo yu dugub lay am dem ba bëgg ko def cere xalaat ne sëñ baa ngi mu ne naa ko def muuraak dem yët ko sëriñ tuba noonu lañ bis keroog bis seen yitte ji may na leen bis sëñ tuba dajale wax Cheikh Mouhamadou Moustapha na leen nañ wax fere yi ñu dellu ci réew ndax godd yi ak yooyu yi matte ak xiif beeg coono yi metti na nañ dellu ñoom xaar ma fa ma ñëw mag ñëpp na ko mbàkkee dañ fi bëgg a des looy yëg ñu di ko yëg maanaam looy yëg rek ñu di ko yëg loola matt matt mi loolu dal ci yow dal seen itte jure jooju kon neexutoon gànnaar neexutoon te am na ci ñoo xam ne coono bu ne lañ daan daj ndax gànnaar googu sëñ Tuubaa toog na fa bis boo xam ne benn saako sax ñaan moo des ci kër sëñ Tuubaa ñetti ngëpp ko ne ko nekk ñetti fan la ko joxe benn dund amatul kër sëñ nga xam ne am xayma la def lu ci buntu xayma bi la sëriñ bi toog di laajal boppam ndax déggoo leen fi benn jëgg ba yorub dund ñu ne ko ah, kenn ñëwut waaye mag ñi seen yitte mayoon na leen bu nuy jàkkaarloo sëriñ Tuubaa di ko xool duñ xiif duñ mar la ruyatu cheikh fi dunia wa kilimatihi achamin la riidi bal andi wa amwaali loolu la mag ñu wax yow daal mbakke na la jàkk buñ la gisee duutuñu xiif duutuñu mar dégg sa kaddu muy dal moo nu dàqal baat ngi xi adduna yëpp dajaleel alal yi dajaleel jigéen ñi waaye leen seen sa catul mbubb rek baa ñu dégg sa baat moo nu dàqal lépp buñ ko jàkkaarloog moom du ñu xiif du ñu mar kawe lañ def ci yitti ju kon dem nañ ba lu ñuy jëfandikoo sax jafe waaye téewul fii la ñuy jaar wuti gànnaar te lu mbir metti metti fekk la bi sëñ bi nekkee Thièyène kasaalika Thièyène noonu la mettee woon Thièyène ana ndox mi ba léegi si Thièyène noonu la mel fi ne Thièyène ak Gabon bokk na ci béréb Mayomba bokku na ci béréb yi gën a jafe dem te Thièyène a ngi fii nii ci Jolof waaye mag ñi lañ daan jóge fii te booba dañuy nii ngay wuti autorisation noonu ngay amee autorisation pour dem Thiel te mag ñi dañ daan wuti autorisation fu ne lañ daan wëri di dem ku ne dégg na mbirum jaraaf maqiit ba naar ba naan yaa rabbana yaa dal bilaadi wal muhiit xul baynanaa wa bayna abdikal maqiit foofa metti woon foofa dajale na fa Cheikh Mahamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadal ak ñenn ci njaboot gi ñu bindal Serigne Touba kaamil bu noppi s Touba jox leen digg baraaye digg kaas baraay sotti lii la ma yàlla dégg ci dundub at yi ay fagu na len ci len ñak ñàkkati njël te ku bokk ak yéen suñu ndax ndax suñu borom jéggal ko nit te joju may len taxaway bu reuy bob ñuy am ci ci ca nami metti metti la dis xoxtal ya Ciona ya waye teewul nu sax fofé di liggéeyal Serigne Touba ci melaw biir ak melaw biti li ngay gis mag ñooñu di nga xamé seen passif bu reuy ba len koy may ak dogu gu reuy gañi am ci waxtu wu nek lu mbir xéewalu xéewalu bari bari ak lu yëf yi bari bari sëñ baa ngi di teg ci yoonu defar leen ci biir defar leen ci biti ba noppi sant leen ñu wut ay dëkk nga xam mag mu ci nekk tey jii xoolal fii ak ci nekk tey jii boo doon xool xoolal feneen fi mu nekk ci biir biir réew mi ñaata dëkk la mag ñi sanc boo doon seet tey ci biir réewum Sénégal da nga ci fekk lu ma juróom benn wala juróom ñaar téeméer dëkk yoo xam ne day wuyoo ci dëkk yoonu woon ñu sos ko ci lan liggéey ak jàngale seen yitte mayoon na leen sëñ Tuubaa bi muy taxawal jumaay Njaaréem ci yan circonstance la nekkoon ci yan jamono la nit ñi bañ a joxe impôt waaye di jox sëñ Tuubaa addiye bu laajee ñu joxe bi mu fiy jógee jenn jumaa jooju la fi lay yoon ci zahir te waay ma sa am daw wuti ko fekk ko moom Serigne Touba ci melokaan yëpp ak yitte jooju mag ñi bii gàtt na njëriñ waree neex bañ jàpp boo xam ne dañ dañuy kenn ku nekk mu yabal la ci àll nga delluwaat ñu tasaaroo lu way am loo baax la ñuy wër Serigne Touba boo demee ñëpp te pas-pas bu dëgër a xamee ak yitte jooju 1895 bi Serigne Touba demee ci géej gi ci ngay xam njàmbaaru mag ñi ak seen ngor bu kenn jàpp ne menn magum Serigne Touba toogoon na fi béréb rek na fa sa wéetu bopp ku xool lettre suñ mbakki bu su mu doon wax tubaab bi da nga ca fekk njàmbaar fekk ca fit fekk fa dogu xam ne li ñuy teg suñ tubaab lépp ay tuuma la kii yàlla rek la soxla ak sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ne xanaa bu ñu jàppee sa kilifa wala ñu convoqué sa kilifa boo amutoon yitte amoo pas-pas amoo dogu da ngay rikkile jéem a seet noo def ak loo wax waaye doo gën a renforcer wane ni kii ku ko xoolee lenn lu dul jëm ci yàlla yaa ngi nax sa bopp yàlla yitteem rasulullahi rek la am la am doxi teewul

dëgër googee tax na ba bi Serigne Touba di ñëwaat fekk na lépp dëgër kon bu nu dëgërutoon te sëñ bi sampu leen moo tax organisation mi ngi tàmbalee ci Serigne Touba léegi la nga dégg ne murit amul programme loolu aw xas la murit programme sëñ Touba ba mu programme dana am yu pëccëxoo kon bu demee bàyyi fi yoon wi nu muy mel ci ci bi mu demee ci géej gi rek bu fekkoon ne yoon wi amul programme yi kon bu sëñ bi ñëwee nu muy mel waaye kenn ku nekk defal na la loo xam ne. doy na la sëkk ci yitte ju rëy noo ca sàmmoo ba man koo jàpp ba man koo jàpp noonu ñu melal ci nungoo liggéey ci biir réew mi ngay gis ñoo xam ne waxuma la dimbale ay jullit waaye dem nañ ba dimbale sax nguurug France ci mag ñi dem nañ ba dimbale nguurug France dem nañ ba lebal aw jiw am na ci jamono boo xam ne liñ soxla woon ci gerte amuñu ko ñi leen ko lebal taalibe Sëñ Tuubaa moo ne bañ ñëwee di fay si na ko dañ ñoo leboon dañ leen dañ leen lañ la leen wax ba ngeen mënoo leen amoo leen bay sàkku boo leen amoon doo leen fay ka taxoon ma def ko ba yàlla te ñooñu koñee nañ leen mu ne am sàq bëgg nañ ko ci réew mu të teg nañ leen di fetal génne nañ leen xiixaan mu nekk def nañ ko mag ñi ñu taxaw taxawaay bu dëgër bu te seen taalub diine bi mës sa fay seen dox yi ñuy mës sa manqué seen diggante yàlla dara mësu ca dox parce que boobu leen mayoon ngay dem ba gànnaar mag ñi ne fii di yónni turu doom sëñ Ahmadou Fa Jama sëñ keroog bi sëñ Modou Xëri feeñee gànnaar la fekk sëñ bi ba mu ko yónnee di yónnee laaj turu doom li ngay xam ne mag ñi kenn du ñoom way juróom dafa dafa wut ab dërëm def ci addiyam ne ko téeréb sëñ bi ëpp na ma waaye bëgg naa mu ñaanal gan gi ba ba mu demee ba ñëw ndax sëñ Ahmadou dafa xawoon a yaragal ba mu demee ba ñëw ba gan ba gan gi ñëw kii jamono yóbbu lettre bi mu ñëwee sëñ Ahmadou Fa Jama na négal ma xool lan la sëñ bi bind ci téere bi ma tekki ko bune turu yalla ma diko ko jëfandikoo ndax njaboot gi bu am mu tok bune dee ab aayab alquran ma bind ko lu mu fekk seigne touba def ko ci gan gi def na ko mbegum yalla ak rasulullah baat yi lañ seigne touba gan gi def na ko mbegum yalla ak rasulullah mune lol de mom du deug doole la simple ne lol de mom du deug doole la xol fa ñuy ñu ne dem gànnaar laaj ci turu dom ci yéen laaj ci turu dom nangam dem laaj yi turu doom loolu kon moo leen mayoon seen yitte yooyu ñu am te xam adduna nag xam gu toll ni kenn ci ñoom ku jaxasoo nag kook adduna ñu xam la nga xam ko ngeen bokk ndax ku ci nekk am na koo dendaloon koo xam ne kook adduna nga waaye wan nga ko jikkoy sang ba mu topp la te mosulaa jàdduloo ci lenn lu mu bëgg mag ñi kenn ku dérapé amut menn mag mu rusa nettali amut aduna du len fëkk banex du len fëkk alal du len fëkk lolou rek jafe na da ngay dekk ko chef de canton wala nga dekk ak jaraaf nangam wala nga dekk nangam lan mo tax tay mam mara ni ñu dalon ko Mbàkke lan mo tax lenen xaw kenn ku nek ko beus dekkal lu meuna a lo aduna aduna da nañ fexé ba won la yalla ci woor mu daranté yow kala la mais lu tax ñu balañ ne au contraire bayyi sa diine bayyi sa juddu bayyi sa mbor topi lu dul mag ñi musu ñu ko def te borom dër daana wax ni seigne touba de doomi soxna yi ak ceddo yi jikko ju rafet la leen téye jikko ju rafet defar nga say bokk ba defar ay jambour ñepp japp nga téye seigne jambour alam tara anna allah ahdahu rutbatan aqaribu taxwi biha wal abaana ni ko gëna jégué jari ñu ci ni ko gëna a sori jariñu na ci kon lolu seigne bi doon tàggate ko defar nit ñi motax da lan bañ ko bañ a Cheikh isa jenn seigne touba ne ko isa jenn ba amu talibé bu dul mu ne ko déedéet mu ne ko boo xamee wàcc ko pour liggéey neexut a dimbali mag ñi li tax kenn moomu leen woon dañ daan liggéey borom du am dara turandoo sëñ maam Cerno daan naan ku dul liggéey du am dara ko mu dara du toog ku toogul du jaamu yàlla ku jaamul yàlla dem àjjana mag ñi dañoo fexewoon ba ba ba téye seen bopp ci nungoo liggéey boo bëgg boo nunguta liggéey nag te bëgg a dund dana la yóbbe ak yaxale te kullu man yatamallahu yatma ku lay sibooru ku nekk am na lu mu bëgg ci yow mag ñi nag dañoo téye woon seen dignité waaye dañoo doy loon gis mag ñi seen léegi ñax ya ak seen cere lay ya ak leen doyam léegi nag bu dee ndax sëñ bi leen digaloo ne leen ida aratum najaata min abnaa dunya fatruka lahum fa man wajada minkum fal yabdul wa man lam yujad fala yatlub adduna moom maa ngi leen di sàkkal solution boo leen ci bëggee mucc bàyyi leen adduna ak waa xoole fi adduna bi toll léegi jamono jo xamne ko koo dégg ña nga lay maanaam ñettay dox da ngay am procès wala nga am dossier wala nga am vocal rek ñu teunk la ci nangam bo amul sa procès du jall nangam bu mu sa dossier du jall neel mi ya ngay vocal lolu lu xew yakante bi melni ay mag ñi kenn mus koo mën a mag ñi loola taxoon ñu nawante nawante gi jur ci ñoom bëggante wajal xuluubana ala tawaadudi bila tanazuin wala taxaasumin moo tax daawuñu ŋàññante tuddantey doom kii day tudde kii kii tudde kii kii jàpp kii kii jàpp kii kenn ku nekk sañe ñëw kër ka ca des fekk fa doom yóbbu ca daara ja fekk foo tur tudde sa bopp doon nañ ci benn archive ci archive yi demal Nantes wala nga def Bordeaux ba gis ñu sikkal menn mag teg ko baat bu ñaaw ci magum diine fii ci réew mi ci njabootu Sëriñ Tuubaa ci nekk ci jot a xam ne amul fenn fooy dem ci gëstu ci benn archive ci àdduna ba gis menn mag ñu bind ko korwaa ko teg ci moom baat bu ñaaw si diine jëmu leen bokk gi nekkoon jëmu leen yoonu murid bi jëmu leen boole woon nañ liggéey bu wér jaamu yàlla bu wér jaamu seen njàmboor bu wér kenn ku ci nekk fa nga waroon a teg sa tànk nga teg ñooñu nag ñooy ñooy modèles yi ñooy référence yi ñooy royteef yi ku bëgg a jariñu ci ñooñu ngay roy ndax bu dee juddu la gën loo gën le wóoleen bu dee xam-xam ëppale wóoleen bu dee daraja ci lu yàlla ëppale wóoleen ko te jël nañ lépp boole ko topp Sëriñ Tuubaa te kenn du leen jam ci dara nañ doon ànd ak sëriñ bi kenn ku ne fexe woon na ba kenn du jaare fi yow ci bunt yàpp sëriñ bi mboolem ku ma sa bëgg dëkk sëñ bi sax bu dee ci xam-xam boo bëggee dëkk sëñ Tuubaa boo dajee mag ñi kenn ci ñoom rek weddam gis ngeen ñu seere ba tàyyi na waxuma la nungul sëriñ Tuubaa waaye sëñ Mbàkke Buso doy na sëkk ci misaalum nungul sëñ bi rek ndax doon ak kim doon ci xam-xam kum sukk sa bëti wóom kum sukk bëti wóomam ci sa kanam xam nga ne waajal lu mu wane xam-xam bu mag ak xam boppam ak doxi na naa na Seex Modi Joop Paxal tontu na naar yi ci gànnaar ba mujj ñu ne ko ndax yaay a cheikh mu ne leen bal ana gulaam nga yéemu ci moom loola mu ko may yéegal yitte jooju ko may ba sëñ Tuubaa na ko def naa la bis ni ki tey ngay sama jaww man may sa asamaan loolu sëñ Tuubaa ko wax mooy mu daal di bind loolu ahmadu jaw jawwun wa shaykhuhu sama wal ardu taxta al jaw ila taxta sama kon pas-pas bu dëgër rek mooy may nit nangam gis nga mag ñi seen yitte la kenn mënta jot xoolal demal wutali ma téere nga wër wër ñëwoo mu ne bu ma la fi gisaat te andiwoo nga dem ubbi léegi lu xew li sëñ bi bëgg kenn mënu boo gisee positif man loolu lu sëñ bi bëgg kenn mënu sëñ bi day wax ba noppi joxe ndigal nga ne loolu moom i sëñ bi sëñ bi seet doon lay wax jamono ji daal dëgër moom dëgër googu ndax liy dàq picc dàq ndigal mag ñi ñoom benn char lañ amoon kenn ku nekk benn char benn symbole nga mooy lan lu sëñ bi bëgg dana am lu mu sam sant danañ def lu sëñ bi bëgg dana am lu nu sant dañ ko def même mag mu nan jamono ji la deug rek jamono ji la jafeek señ bi ni bëgg kenn mënu ko am fi ni bari na xamne bo ne ko won bu bu toogoon ànd ak sëriñam pas-pas jafé na de si motax tax bu ma déggee ku naan bu ma jamaay wala mag ñi nangam mag ñi duñ duñ ay jaxal mag ñi ndax problème moy jëmm jëmmi yow mag ni créé gi la créé rek yow maanaam yow nga xam yow fexé nga ba am buy jur bu baax am mam ju baax dëkk bi mu sant rek yow bu la bàyyee woon dëkk ba ngir ñu ne la clôturer ko di def ci ñun lépp noppi nga noppi nga amati jam te xoolal jamono ba nga koy defee mm-hmm. mag ñi xameewul buur xameewul nangam loolu sëñ Balla Coro sëñ tuba wax loolu na ko ci benn góornóor wax ju doy waar ba mu ñëwee ne ko ndar ba ndakaaru maa ko yilif lu ma neexa fi am te fekk dafa jógee ndakaaru bëgg a siyaare sëñ bi bu ñëwee ba ba nangal ma mu escale yónnee na dafa bëgg gis sëñ bi sëñ bi ne ko mënumaa gis wax jooju diis ndax ndax kilifa la ñu ñëw ne sëñ bi diw de dalaa bëggoon a gis sëñ bi ne mënumaa gis ñu ne tey àdduna tukki dem dajaloo ñëw ci sëñ bi ne toll noonu mu gis ma toll noonu ma ne dama gis bi mu ñëwee nuyoog sëñ bi nag gis boppam daan na ko man ndar ba ndakaaru maa ko jiite bu ko neexoon lépp def maanaam jëm mi wane gi muy wane boppam señ bi gis yàlla ci sensité na ko balla coro de lii ma la wax boo ko di wax boo ko waxee nii ma la ko waxee dara ji Seydina Moussa ngay dëkk ëllëg ne ko kàcc na sëñ balla coro ko eh baax sëñ bi te loo jaay jaay fës-fës bu la waaj noonu saagal sàndara bu ñu fi ne da ngay da sëñ bi léegi kuy xarul lay wut loolu moom bokkul ci sëñ sëñ bi xoolal maanaam pour mag ñi rek ni ñàkkoon a yëgee gis dara te loolu kenn mësu ko kenn mësu ko xalaat ci xalaat ci pas-pas bu dëgër bi ñu am ci dogg ci xam ne lu sëñ bi nekk loolu mooy li gën ci ñoom loolu mooy li dëgg ci ñoom loolu nag mayal na leen yàqin ju wóor doo xam am na ci ñoo ne barke borom Touba lañ daan léemoo barke borom Touba lañ daan fajee liñ la sanal xay sun Cheikh Modou Diaw bi ma la wax na teel bi si isa dem naa ba tax laa leer ko suñu Cerno Diaw yow mën ngaa wér di mille sept cent nangam barke borom Touba mën ngaa wér di nangam nangam mais parce que su mag ñi mag ñi ci ma na jàpp ak xasida boo ne ko càkk doo yëngu doo wax da ngay teewlu jublu penn ànd ak njàpp doo ree doo kaf teewlu bind bi teewlu ku bind bind mi moo tax bu ñu ca mas a ñor di mu ñëw waaye léegi da nga naan ubbetu xasida alhamdulilah wasalla abada ala lasi bihi lana huda abada sina salatu bi na koor nga la alu waa booy boo xam ne wa loolu loolu loolu fooy connecté maanaam mag ñi rek laay wax fi ñu nekk ni ñu daan teewloo sëñ daaw ñu tudd turu sëñ Tuubaa te maam Serigne Sylla fii ci kuréel dula dox na ci di dox ci ci ci ci ci tóogóor bi dégg ku ne Serigne Touba moom tiit ba daanu ci kàpp ndax ndax baatu Serigne Touba tur yu mu dégg rek la tiit ndax xam kañ daan gis kum doon xam kañ daan jàkkaarloo kum lool loolu tax na ba sooyuñu mag ñi sooyuñu li Serigne Touba noonu yàlla jox na lépp te doo leen soñ mooy sooyuñu lañ bëgg woon ci Serigne Touba lépp am nañ ko te yitte juree leen ko may ak jëf سيدنا توبا دنا ولي شيخ بشير ان سبع سنين الذي مكثتها في كونغو ما داعت سيظهر يوم تبلى السرائر محمد البسيط سما جروب نياري اتي جيج دو رير موك دا نا فين بسبيت لوتاخ ما يالا بما كاي جام نخومكو بيم ماي فاي نخوما واي ليست الدنيا بدار الجزاء وشيء ادن بذكر فاي من مؤلف واي ديغالي واخ نخوما يالا بما كاي جام waaye yàlla yi naxul bi may fay sëñ Tuubaa nee na lu waay dof dof dof dof du ma la nax waaye lu waay muus muus muus it doo ma nax mu ne su ko dóor de su ko defal ay dil gis nga sëñ Tuubaa boo nekkee ci ruq tey def lu ñëpp jàppale na yaay waaja bi say ñëw mu ne la tors la mu ne la tay torsu dëgg nga ne fan la ñu xam ne nekkoo ci dëgg boo dëgg te dëgg ga sax ci yow loo wéet wéet wéet wéet wéet bi say ñëw mu ne la tayib lamp ñëpp xam ne yaa ngi ci dëgg moo tax mu ne woon dëgg yi dëgg te du soppi ko neen al xaq xaqun wala yanqalibu al baatilu wal baatilu baatilun wala yanqalibu al xaq afa man kaana ala al xaq wa in kaana waxda la yatihu al jamaa wa man kaana ala al baatili wa in kaana maahu al jamaa la yatrukunahu wa yabqa waxda imma aajilan aw ajilan buñ la toppee naan la yawa yawa yawa yi te nekkoo ci dëgg sëñ Tuubaa dina bis dana ñëw mu leer nañ ñëpp bala boo nekkee ci dëgg wéet di dox yow keppit bu yàggee ñëpp ñëw fekk si la loolu la sëñ bi yare woon mag ña loolu la sëñ bi tàggate woon mag ña mooy sax kenn du wax loo xamul kenn du dugg ci loo dugg lii xew ci àdduna bi amutoon ci jamonoy mag yàqante waxante lu ñaaw bala ngaa bëgg yàq sa nawle bala ngaa kontaan rek maanaam maanaam sa la ngay reesare sa reer daal mooy gam sa mbokkum nawle te la gën a kenn xamul hypocrite bi am léegi kenn xamul li xew ci àdduna ñaaree ànd ñett buñ tàggoo rek kenn ñaar ñi nekk ci kenn sa waay ji nanga bu subaa kenn ki teel a xëy daw ak ki ndax ci yow la nekkoon mag ñi meluñu woon noonu loolu parce que ba ci biir nekkee ci kanam sëriñ bi wax bu sëriñ bi masaa nekk woo xeet bu ko nekkul da ngay dégg ci bi jàll bu jàll ci kees la bu doon dem ba jëli saxaar dem waaye léegi kenn ku toog ci kanamu sëriñ bu ne ana diw nga nak ah sëñ bi dem bo demee kooku de mi ngi ci bopam day dox rek bo ne sëñ bi xolal mo nga gën taxaw diwo wañ ñi ko dem na dégg na sa du ci yem dégg na ma nga ci kessu jigéen ñi lu fay def ah ko sa waa ji ko xam xam xolal xoolal man mag ñi melu ñu woon noonu ñoom lu am dañ ko daan sabul keneen kañ ka ka ka ka ka ka ko fekkul dañ ko ko daan sabul ngir momit mo man ca caa jot xool Cheikh Mamadou Fadal dafa ma ci ñew ci sëñ fam sëñ fam dafa ma ci ñew ci sëñ Touba nag murit yëpp nga lay sant di la gërëm cant gi gërëm li mooy dangaa mënoon a ñëw ba dem ñu ñëw baa nga ñëw te duñ la nangul mu ne ko Mouhamadul Fadal de loolu cant gi a am na leneen lu ci des mooy ànd ku xam fam jëm ak fam xam naa fi may jëm xam fam leen jëm waaw ah, xoolal li ñu suñ fallu dimbalee ci baax ñu noonu lañ li ñu def idaar lañ daan wax idaar mooy ñoom ku jariñu buñ jëriñu ci ñoom baax ñaata yoon nañ daan ñëw suñ tubaab na ko diw diw sàngam def ko nangam diw sàngam def ko nangam bii yow daana am ci kër sëñ bi ak réeroo daana am nit def ko waaye da ngay gis ku dem ne la nangam li tax loolu rek defal nangam ci kër sëñ bi defal nangam taxawul la ci kër sëñ bi ba du jeex loolu ba waxtu wu nekk mu ngi am kon adduna faw ñu dellu siwaat ci nu mag ñooñu jëm ko roy wallahi mag ñi mënuñu leen jot ci njàmbaar mënuñu leen jot ci liggéey waaye ku ku ku ne nañ mel danaa ne jéem a mel boo ni mënta melit yow ñi nga maasal ngaraw leen kon loolu nañ ko bàyyi xel waxtu wu nekk ci jëf ji taxadiyaat yi bari na inxaraafaat yi bari na fu ne mbiree nga fay bàyyi koo jëm feneen waaye nañ jël nit ñi di leen jox référence sëñ man boole sëñ Thierno Bousso tey jii man nga caa joxe message lépp sëñ bi la jaay léppam liggéeyal sëñ bi doon borom xam-xam di borom yitti di borom pas-pas di borom pësir laq ngërëmu sëñ Touba laxasaayoo ko ci ndigal te nu nguur a tàcc kenn ku ci nekk jaay nga lépp jënde ko sëriñ Touba ba am ngërëmu sëriñ Touba loolu nag koy na ko jox misaal ñu dellu ca ñu dellu ca dox yi lu mag ñooñu yoon wi kat léegi-léegi ñu ne nangam amu ci waaye léegi ñu bëgg ci génne lu ci bokkee gis nga pas-pas ak positif ak yitte ak liggéey buñ ko jëlee ci yoon wi yem ak lépp yoonu murid lu ñu mas a mu daanu lu tax genn kar lu ñu mas a mu daanu lu tax yitte léegi mboolem pas-pas bu mag ñi amoon soppee nañ ko ëskee fasaal maam bu Bousso demoon na gànnaar maam Thierno Bousso njeere maam Thierno Sëñ Tuubaa nga ne est-ce que yi cey fasaale de doxul dara sotti mboolem luñ loolu bët bu set nga di ko gis mag ñi desu dépense desu addiye lañ daan dunde desu addiye desu addiye moo doon dañuy liggéey ba noppi la cay àqu yàlla jëpp la ca def ñu jëbbal sëñ bi lañ desee dunde sama classe gi nag desu dépense dañuy joxe addiya mel na mag moo ma sa ngemee kañ ci kanam sëñ Tuubaa amut te sëñ Tuubaa mi leen doon tàggat loolu naafila naafila téeméeri rakk loo jub jub loo sell boo dikkee ma ne la faddum ala sidqi wal ixlaasi mujtahida fi sir wal kooku du kapp kappal gan xoolal Cheikh Darou Assane Ndiaye li muy naafila téeméeri rakk la ko góor yàlla jiitoo du doon jëfam coobaree suñu borom fanaa tësal fi tuxaa la ko wax فلا تزل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقي العصيان والفتن noo sa daraja toll ak noo mën a mel boo dikkee yàlla jëm nekk ca la lay suuxat yàlla jëm nekk ca la lay saxal kon waxi kese taxul dara sotti sëñ Tuubaa nag nee na ca laa bokk ca laa bokk te sa dara néewu ca ba bi su payu ba coow li bari na wax ji bari na waaye daal ku rot ku lay mag ña da nga mucc ku lay mag ña da nga jariñu ku roy mag ña da nga am nag am na ko ma salaat seen seen na ko la mag ña amoon ndax koo ko bëgg mën nga ko am na ko loxo bi ko doon joxe mi ngi fi jógu fi waaye ndax nas defoon ba am ko ñu ngi koy def boo dugg see ci kër sëñ bi li ngay jëkk xool loo kilte gi xoolee sëñ bi loo jëkk xool mooy loo nangal ku la kañ ci kanam sëñ bi neex la wax naa da ngay ñëw fii ci màggal gi ñëw nuyu sëñ bi sëñ Alaaji wala sëñ Mamor wala sëñ Cheikh Bousso yor fukki junni nuyoo ko junni denc 45000 d'accord sa xaalis sa waaye lan ngay xaar ku la kañ jàmbaari sëñ àndaay ji ji nga daaj 30000 sa bopp 30000 sëñ bi junni léegi loolu boo génnee lu lu ñu ah ñu naan yow ñi lay yuuxu naan la jàmbaar yi léegi kenn doonul te jàmbaar ci yoon ku mën a joxe 1000 rek jàmbaari sëñ jiw jàmbaari sëñ jiw jàngoo 1000 ndax fekk doo joxe dara doo doo doo demi tool doo joxe addiya doo siyaare ji sëñ bi du xam ci looy nekk jàpp nga ne dara mënta nekk loolu nag murid bi daal bu ñu ko moderne bëgg koo seet noo ko seen sengaleeg noo ko yeesaleeg am yoo koy seexloo yoo koy jindi du murid gi naa fee mbërki démb ku ne ku ne waaw sëñ Tuubaa de mu def da koo bind da ko wax nañuy def mbind man nag man nag bëggoon ngeen maa ngeen wax ma fu mu bind bu seex dafa bind loolu bëgg naa koo xam comme yéen da ngeen di gëstu ne ngeen wax leen ma te du julli du wor te ku ko dingat ñu ne sawara na jëm te sëñ Tuubaa saxal lolu ci kërëm njabootam di ko doxal nam def ba top Cheikh Ibrahima sar Njaañ bo ne diw mu ne sar fu ko bind diw mu ne Jóob fu ko bind jural jox ma di liggey di ma jox wuyo sama sam na tok ci ko dox su suuf fu ko bind yoy buñ ci duggoon ci ku jublo wedd rek yow mi ko wax sax nan sëñ bi bayu fi nang bayu la fi yow du ay wax bu fekkee ne jàmbaar la boo lépp sëriñ boo lépp sëriñ da ngay fexe ba defaree li sëñ Tuubaa defere tey gën a yàqu gone yi gën a sàmm góor jigéen ñaa ngi góor ñaa ngi taxawal ñii di man di topp ñu seen i way di a defar ñii a wóor boo amee loo defaree boo ko defee loo daj bi ku a dajee bi am dajee bi dong lay jur ndax yow lañuy jëkk tàmbalee daj ndax koo defar amul ay wax amul sens li am sens mooy li sëñ Tuubaa defoon fekk jamono bi lëndëm jamono bi yàqu sawara di xëcc nit ñi sëñ Tuubaa fexe ba ne kaay leen topp ma woon leen yoonu yàlla te man ku ñëw ci man uri li wa ci maliki sabila kullu muridin sadiqin nabila ku dëggal ñëw fi man ma teg la ca yoon wa ba ngay yegg ci yàlla moo di defar waaye defaroo kenn yaroo kenn jubantiwoo kenn di weddeka daj yi ñëpp ko man comme neex bu ne wert nga son genn kilifa day contre boo ne télévision biñ ne ko télé yi léegi am na commande da ngay bës mu ne ah, loolu la ñu mënta dox doomu béy moom lu mu loo ko jëkk wax da daal da koy maanaam bu tele bi leen jërótu sax yooyu de moom tele naan ñaaral ñaaral dem taal xam nga ne ñaaral ñaaral dem toog taal toog taal ko gën a yomb nag waaye jubloo dajjee da lay yóbbu sax coono boo xam ne kenn xamul lu mu doon kon maa ngi leen di gërëm da mu ma xam naa ni ma ko waxee yitte yi sëñ sëñ Mor noo ngi sant bu baax di gërëm si waxtaan wi xam naa mbokk yi teewul lañ ko bu baax béréb yi jëm a am distance tuuti waaye bu sa sañoon dañuy gën a toog ci jotaay bi noonu ñu jéggal rek maa ngi dogal ngànt kilifa yi fi nekk ak boroom xam-xam yi fi nekk ci lépp loo xam ne jabat la ci waxtaan bi maa ngi koy tuub ndax nit matul nit ne parfait seen Dieu est complet kenn matul yàlla rek amat waaye li ma wax moom mooy li ma gëm moom lay dund moom man moom waxuma lu ma gëm waxuma lu ma dund loolu laa gëm loolu laa dund mag ñi ñoom laay roy ñooy sama référence ñooy sama idole ñooñu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Fallou Bousso moo jox addiya ji nee na képp ku yaakaar Serigne Thierno Bousso ni ñëw jox suñu gànnaaw Bousso addiya nee na képp koo xam ne si waxtaanu ñun waxtaani Serigne Touba doon dugg na sa xol nga gëm ne li nga yor Serigne Touba am na si wàll ñëwal jox suñu gànnaaw Bousso ko wéyal alal yi gànna ma dina fàtte wala dina jottali